am ak Awa Baba Thiam man awma ak Awa Baba Thiam benn relation encore une fois amante woo leen man Awa Baba Thiam du sama xarit d'accord awma ak Awa Baba Thiam relation d'accord du sama xarit aw ak moom benn relation euh, ban relation nga am ak Sala Sow Sala nag mhm. suma doom la muy xale bu baax mhm. ma fonk ko muy nit ku baax a baax mhm. muy xale bu baax boo xam ne nit ku baax ku détaillut waxu doxu jàmbur tubaab la dugg ci yëfu jàmbur foo ko fekk waxu business lay wax ak lu ak lu jëmale seyem bi kanam ak lu muy taajalee jëkkëram reer man de loolu laa xam ci fala dama ni may gis ni fifi mat naa mat goo xam ne man xale yi détail yëpp Sénégal jëluma leen man xale nga xam ne baalal ma fifi allo man maa nga am anecdote yoo xam ne ak Mor su ma ko waxoon dëkk bi dëkk bi dafa toj Mor maa ko yar su ma rakk la. Mor Thiam yow yaa ko am Amzo. maa mag moor Thiam fuuf maa ko yar su ma a bo ah bon xëy na xew nit ñi dem ku ne fàtte sa morom waaye dafa am yoo xam ne man ci sama bo comme ne yónneewut ay nitam waxut man tamit damay tëj parti boobu du ma mos a wax te damay tëj ba ilaa yow mi diin. lu tax nga traité ko de jeeg bu ndaw. waaye déedéet waaye déggoo li ma la man la comme moom. wa man sànni naa sama sama faya. waaw mbaala bu yor buy nappi. moo mhm. lam fa nekkoon di def moo du yëfu nit. géwél da ngay defar. Mhm. toroxal na fa daba sëy. gaaral mhm. na fa alsan toroxal na fa soodu kuso. yow benn moor ci am bi pour xew mi jeexul est ce que du ay kuy ñoo fa bari te dañu ne ay kuy duñu bokk mbalka xam nga xewu vip la xew xewu borom oui ma est ce que du gaaw fii dafa bari ku nekk di gis sa bopp waaw fifita waaw yaakaar naa ne fas lum daw daw daw daw di nga ne fasa ngi nii dëgg la sooy wër vip mhm. sooy wër ku riis mhm. sooy wër ko am maanaa mhm. yaa ngi dégg dama bëgg nga mu bu baax a baax a baax a baax a baax sooy wër ku riif sooy wër ku am maana sooy wër ku am dignité ba egsi si yusuma jigéen doo da ngay dëpp fa la dëj ki yam te bërki démb ba muy mayee doomam ba muy may doomam ji buuba jóob te moo ne buuba jóob mi groupe faramaareen la bokk groupe waale dañ fa dégg coow mm-hmm. fala bokko dëgg la Youssou Ndour mm-hmm. Mami Camara da doon mm-hmm. sëy gisu tas nañ dëgg la moo riigu est-ce que fa dégg bir wi déedéet. Penda Guissé moo yoroon microcentral bi gérer ko ba mu baax ku nga jël sa bopp. et Abi Ndour a ngi toog Ngone Ndour a ngi toog keneen ka nu mu tudd. Ndeye mm, euh, euh, Seynabou Ndour ngi toog. waaw Samy Ndour ñëpp a ngi toog. Viviane ñëw ànd ak doomam waaye Viviane fa la doon sëy sëyetu fa mi sëy Maître Diagne fa la doon sëy sëyetu fa. est nga fa biir bi. ñaata jabara fa nekk doon sëy te ñëw wuy si mami Camara te mami seetut ko da fa dégg gaaral wala biir wi e dama na nit ñi waxante dëgg. ni dañuy dégg muy répété naan ko nawloowu ma la man sama xaritoog yow bëgguma ko yaa ko bëgg est-ce que kon loolu euh, le fait mu ñëw ci xew bi sax c'était sincère ci moom. parce que nit ki boo ko bëggul boo ko nawloowul boo ko boo bëggul nawloo woon teg moom je pense waroo leen. déedéet waaye si si mooy li ma la wax rek encore une fois mer noonu borom la xam nga soo meree. lu ne di nga ko wax nit. Mhm. mer noonu borom la rek waaye nawloo ko tax mu ñëw ci xewam yërëm ko ak bëgg ko ak teg ko palaas moo tax mu ñëw ci xewam. Mhm. waaye mer mooy noonu borom yenn saa yi. fifi mhm. nit def la loo xam ne day def dafay dem au profond de ton cœur ba voix yi génne sa doo ko tey. waaye moom sala sala saw mm-hmm. aw baaba su wéetee xam na na sala saw gën ci moom mm-hmm. aw baaba su wéetee xam na na sala saw c'est une grande dame parmi les grandes dames parce que mm-hmm. nag nit ku lay dimbale te ñaar ñett duñ ko yaakaar naa ne waroon nga fexe ba yow kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn du dugg sa diggante ak moom te kenn duggunte kenn duggul digganteem ak moom parce que moom moo ko def moom moo tuutil sala moo dem ba ca xew gis nga moom Mm-hmm. moom moo kóol sala sew ne ko nga ne sala yow rek laa ndayale ci xew mi mm-hmm. ndayalewu ma kenn moo mm-hmm. sala soo xamoon ne eh, eh, eh, aw baaba am na fukki nday waaw du indi teraanga bi mu indi waaye da ne yow rek laa ndayale yow rek laa am ci nday kon yow rek yaa ma mën a taxaw moo tax sala defee ni mu defee d'accord te ba mu ñëwee da doon tu sala da ko da sala gisoo ne Soda Bousso ak Alsaan Mbaye xaw nañ faa xëccoo xëccoo boobu parce que dinañ ci dafa dafa bëggoon a joxe mhm. parce Xadi Kebe mi mu àndal du dee nangu muy guddee àll mhm. te boobu Xadi génn da ba ba ba ba heure boobu jëkkëram ma ngi koy woo jëkkëram ma ngi koy woo mu war a ñibbi te moom tamit ndey la woon Sala da koo eh, eh, awa baaba da koo woon mhm. mu ñëw mu bëgg a joxe teraanga ak teraanga sala pour ñoom ñu ñibbi parce que sala ci ëllëg sa dafa waroon a voyager dafa waroon a dem umra moom xew may tax mu changé bi kon yaakaar naa ne ki la defal sacrifice yooyu yëpp ak ñi ànd nee na góor jigéen buy kuusu laa ay waay <laughs> kaa bi kañ fifi comme que comme que jaay borom kaa bi da kaa yi leer rek fi ne nii nag nee na tuuti sama doom juris ju am maanaa ju turé maa ne <laughs> ah man de loolu laa bëgg a laajte ndax damay kuusu ah non comme comme nag nee nga nee rek nañ wax rek loolu wax est-ce que am <laughs> man de sufita sama taat bi rëy goo xam ne xëy na couche ba may dégg ko ah xanaa quatre euh, xanaa quarante cinq XL la man de fi mu sama tànk sa mënatuma doon dama bëgg a dem chirurgie pour ñu wàññi ma sama AC sama sama pooj pour nga am couche. <laughs> déedéet pour pour déedéet dama dem ma ne la. waaw sama tànk yi sama wang bi moo àttan sama tànk yi. déedéet kañ. kon man kon su ma ci bëggee boole ay couche xanaa ci pousse pousse laay toog. waaw day metti day metti moom moo wartoon a ay gangam ñu ne xaaral ñu dem ji am soo ci loolu la wartoon a dugg. d'accord. Euh, euh. li ma la wax kan gee xew na fi barki démb. dëgg la. Youssou Ndour ku ko gën a euh, kan moo gën a doon Mami Camara jeeg moom mi sey roi di mbalax. Mm-hmm. Youssou Ndour da nga gis ku ko ëpp million Sénégal nañ waxante dëgg ma déedéet déedéet. barki démb doomam ji xina time bi mu def day moromu xina time awa baaba bi nañ leen waxante Mm-hmm. fan la ko defee ci jëlul baas fam ko defee papaama ko moom biir këru papaam la ko defee dëgg la ñu def ko ca saal bu mag ba àddina yëpp génn viviane mel ni rab jiital zeyna nduur doom ja mm-hmm. abi nduur génn mm-hmm. ndey seen bu nduur génn xale yu baax yi génn te mënoon nañ tendance dëgg la ndax jabaru yaa ngi jabaru njaga fa jabaru yaa ngi fa te seetu ñoom lañ doon seel waaye ku ci nekk la nga fekk sa morom fexe noo ba jàmm ak salaam ak fulla ak fayda dox sa diggante ak sa morom. la. fii lu ne am na fi. doom yàlla moo ko ubbi ci am na lu ma rëcc j'ai pas compris nga ne délégué na la. dafa bëgg visa naa ko wutal ay kayitu góor jigéen mu teg visa ma ne ko man aw ma kayitu góor jigéen xaw ma fu ñuy wutee ay kayitu góor jigéen. ah. moom ñaareel bi bi ci topp mooy. aadamoo laa amal problème. waaw. ñuy wax ma wax ak moom mu sen ma ay vocal di ci yàq aadamoo. ok. laar yi laa mos a wax ak xamuma ko ci aadama ak aw mosuma koo gis. mosuma gis. fekkuñu ay wax du sama xarit amuñu wootante. non mais Amzo lii lii garaaw na de. Mm-hmm. gis nga doom doomam bii ci famille bu riche la jógee. Mm-hmm. te lim am ci bàjjan soo leen dugaloon ci néeg bugg leen a taal du jeex. macha allah. waaye xale bi benn bàjjanam rek a ñëw. Mm-hmm. te yeneen bàjjanam yëpp ay nomba tànk leen Dakar ay grand dame lañ. lan benn lam rek jar na dix millions waa problème yi am ak ah problème yi am ak awa d'accord problème yi am ay ay comme par exemple ay lan waa ay problème xam nga tam kay ma wala dara gis nga nit bul ko gis comme tey man mën nga ma gis nii ci télé bi waaw ci ci internet bi ma agressif wala ma garaaw di wax wax bi nga ne yii am doo dama ko ragal waaw fekk loolu am zo mbubu du jikko ok nga gis awa xale bu jigéen bi nu mu tudd Xadija euh, waaw bi mu sol ci na time bi binta xuma jóob moo ko ñawal safir safir couture binta xuma jóob moo ko ñawal mbubu mi mm-hmm. ca ëllëg sa mm-hmm. robe bi sol askage bim sol ci suba si mm-hmm. toog ci lal bi biñ koy takk waaw Sala Sow moo ko jox mbubb boobu mbubb yooyu Sala nga jaay trois millions comme ni muy delloo dina bëri de. am soo li nga wax bëri na de anytime ak xew bi. yére ba mu sol ci réception ba ba muy dugg Sala Sow ko ko jox mbubb moomu quatre millions la ko Sala di jaayee. waaw. Aska AG perla style bi sol ci guddi gi gold bi. waaw. doore bi te xaadim kase ñëwoo ko ko bii ci. waaw. Sala Sow moo ko jox mbubb yooyu Sala Sow koy jaayee deux millions huit cent kon moom li muy delloo dina bëri te kaay ma wax la dara et sax xam nga ne. Hmm. seetlu woo dara ci xew mi. waaw. seetlu woo xale bi ci xew mi seetlu li ma la wax. waaw. zuuru takk bi suba bu guddi gis nga xale bi da euh, euh, euh, sol pochette garde pochette. <laughs> loolu moom bàyyi ma ci xel vraiment ay garde pochette moom bàyyi ma ci xel. aha sala sawa waroon livre sala sawa waroon livre moo jënd possédé la fayette waaw ak daal yëpp sala da koo saisir jox ko possédé ba jox ko daal ba jox ko uppukaay euh, dunk ba xale ba waroon a téye te restitution bi gisoon xale bi loxo kese la ay loxo kese la duggee xoolaat vidéo yi am zo li wax ba xale ba bañ koy takk daal xoola red boto yi ko sala jëndal ba te xale bi solo ko tànk neen la def ci kaw laal bi ndax daal yi sala ba tey jox ko ko demal seetaanaat vidéo yi. donc euh, euh, jàpp mm. nga ni comme ñu bëri li ñuy wax naan Alioune Seck dafa dugg ci xale bi par intérêt est-ce que jàpp nga loolu lu war a mën a nekk la. maanaam dañoo jàpp utiliser doom Awa Baba def comme si moo sud les ki nga xamante ne mooy Alioune Seck parce que nee nañ Alioune Seck intérêt moo tax mu dugg ci Khadija est-ce que loolu yow gis nga loolu. loolu ay fen la Alioune Seck kenn ay bàyyi. dëgg la. yaakaar naa ne lu nit gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt ba tey BFDA ñi fay musique bu baaxee ne dëgg la te ki ne jóge ci famille bu riche am maana mhm. kon yaakaar naa ne Aline su saraxatut ñoom aw baaba aw mënu leen a sarax ah bon waaw waaw <laughs> man gisuma la aw baaba am aw fu mu dëkk du ko luye Aline ci état bi baayam bi la jàngee raap judd fekk con fekk tabax fekk con fekk karo fekk con fekk teg état. mais lu wax mooy la ba baayam di dund fexe na ko uy ba ba baayam di dund fexe na ko ba yóbbu ko Europe mu dem jàngi dem fubali. dëgg la aw baaba Khadija fii la jàngee Dakar gii ba am fi bac mos ta xam yoonu Côte d'Ivoire mos ta xam si yoonu euh, Sédhiou bay xam si Ziguinchor. e na nit ñi bàyyi wax dafa am wax yoo xam ne su génnee nopp yi koy digg wér mm-hmm. bintu rasul Cheikh Meng lay seel football footballeur international bi gisuma lu Aline Seck war a namm mm-hmm. Aïssa Rasoul ma gën a nekk xale moo ngi am entreprise entreprise boppam mm-hmm. Aline Seck nga yor structure boppam di liggéey dëgg la waa moo yor faramaareen bi doon musique di ko rëkk yaa ngi dégg kon intérêt bi hmm? fa la fekk fee hmm? mumi sekk nga yor télé bu ga gëy dañ ba paré yor propre moyen am waaw mohammed sekk nga liggéeyal walé yor administration bi é eh, lan la ñuy war gis ci euh, ki alin ana luñ ko wara wax hmm wax ji bari na côté bobu dé en tout cas dama nak dafa am ñoo xamante ci commentaire bi bo ba légui ñoo fi tok ba may wax waxu tàggoo ñom ñëpp la seen xol jeex ñoom ñëpp la seen xol jeex te ñoom ñëpp a ngi message. mais nee nañ am bu ñëw mu wax ci moom kañ lay marié wu ñu wax ci moom. eh man hinna time laa na ma fii sama dama bëgg hinna time. <laughs> hinna da laay def hinna. na loolu woote yow sañ nga kon nag yow sama am fi danga koy dégg hinna time bu ne muur laay woote ci dëkk. parce que Sénégal. te léegi tey du yàgg waaye lu may wut Sénégal nag bi Hinna a te fii laa am adresse fii koy ràcc fii des sama Hinna Time. am so Hinna Time bi boo ko doon def noo koy defee. waaye na laay defee Hinna Time lu ni ko nit ñi di defe lan def sama cosaan. waaw. def sama Hinna Time nit ñi toog ma woo samay ndey ñi ma ndeyale ak ñi ma magale man nag dama am nday riis de. nga ma ba awa baaba dina bokk ci ndey yi. <laughs> mun naa koo magale am problème mun naa ko jox lekku mag <laughs> mosuma fee jotee nit mbaate laa si amal problème ak aw baaba mosuma fee jotee nit Sénégal ñëpp samay xarit lañ. day rëy am zo sa coow day rëy de. waa sama coow day rëy parce que man yàlla moo ma bindee noonu ma doon nit bu am bayre nit bu siiw nit bu ñëpp xam li ma wax xale bi ne ko du ma wéykat du ma taasukat du ma fecckat. Mhm. aw ma benn nomba tànk ma ne ko waaye yàlla moo ma bindal ma am bayre boobu. Mm.